ndax papa yi Modou Lo suñu papa la kon suñu papa ñëpp kon bàyyi góor loo yàlla na ko yàlla yëm te xaar ko àjjana euh, doxu jullit laa dox doxu mbokk doxu àdduna noonu la àdduna ñoo bokk liggéey bi mais bu jeexee jeex na kon suñu papa la kon nu mu nekkee papa yaa boole nit ñi ndax barki de moo njaa nga doon boole ki nga xam ne mooy Pape Diouf ak ki nga xam ne mooy Waly tey tamit nga ñëw feddali sa kóllëre sa diggante ak Lo waaw temps bi motewu ko du ñu mën a lépp mais àdduna lépp jàmm la bu weesoo ñoo bokk liggéey bi mais lépp jàmm la tawfeex jox <laughs>